mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax gis ngeen génn sorti bu Franc mu war a ñëw tey fii ci arène nationale gis ngeen génn xale bi di soq mbokk yi mu war a ñëw fii ci arène nationale soq dugg na waaye Franc ci biti mbooloo mi dañoo bari ba léegi mënagul am accès yegg si ci biir mbokk yi dañuy dugg ci biir xool soq ci digg géew bi ni mu àndee kaay. dama mar a naan dama sonn dama mar a naan. sant yàlla. sant Serigne Sary bu baax. sant Serigne Sary bu baax. ana kontaan na. waaw mbër la comme mbëri fi jaar. rek dama jox jàmm yaara ñu naan rek. waaw dama ma. naan la ba doyel. soo leen neexee jox ma ma naanaale mbokk yi soq a ngi noonu ndaysaan gis nga dugg si bi ak mbaxane tengaade bi ak sëru rabal bi moom soq mu fa yéene laale xale bii di Franc ginnaaw bi mu duggee def ay déeba déebam dem na ci cimikaayam toog ànd ak ay xaritam ànd ak ay mbokkam mbokk yi am na lu ci bees ñoom ku ànd ak soq sol na mbaxane bii wala mu sol li nga xamante ne mooy leket lañu jël dëpp ko ci seeni bopp tegtal la ci làmb ndax làmb lépp tegtal la Ibrahima soq daal soqub dugub soqub cere xaw ma lu muy soq tas yaakaar a ngi noonu le grand champion ndeysaan a ah? tey tey bis bi lan la laaj bis bi ah. xanaa Franc ñëw ñëw si jàmm ñu lëngu ko mu ñëbbi rek waaw tey xam nga boo gisee soq xam ni soq beneen soq la. kon ah daje nga ak bëre simple ñaata yoon. daje nañ ñaari yoon. mu daan ma ñaari yoon waaw. lan nga la la jaay ba doole. doole. moom soq. mun xoolal soq. soq ko neexu la wax de mais soq ko daa ko bëre fuuf ndax ñun chaque jour ñu ngi contact ak xam nañ soq. moo te sook liggéey na si combat bi loo xam ne ba mu dee soq ba tey mosu ko liggéey. yow moom ñam nga soq ñam nga fara. barki sëñ Fallou fa soq daa ko bëre fara fuuf te mu ëpp doole te léegi dina leer léegi incha allah. tas yaakaar la. ma nga noonu grand champion. ndeysaan. simikaay soq baa ngi noonu. la nara bëri ci simikaay bi dana bëri. sox ngi noonu. Père Bourkhane maa ngi lay nuyu di la oh, sant nañu baax alhamdulilah. sox tey day bëri combat capital diggante ak Franc. Pikine gépp génn boot ko ànd ak moom ma gis mag yu Pikine yi ma gis xale yu Pikine yi ma gis xale yu ndaw Pikine yi sax yéen a soq ndam nan ngeen waajee bis bi ak lan ngeen koy yem. xam nga actuellement euh, combat soq bi dafa tombeek deux pour cent. deux cent pour cent bi nag dafa impliqué ñëpp dix neuf écuries ñooy deux cent pour cent bi mais maire de la ville moom ci boppam jógal boppam ànd ak équipe am ne moom day dooleel deux cent pour cent bi li waral combat bi nekk combat boo xam ne dafa am enjeu mooy Sokh dafa nekk koo xam ni dafa am passage ci ci lutte simple bi def ci lim ci def ba ñëw dugg ci frappe bi am ñu mu jot a bëreel mais booy xool soq ñi mu bëreel sax franc bëriwul ak ñoom waaye nañuy xool tey jii est-ce que euh, franc day wane ni yoon wi ma nekk soq mënumaa baare wala euh, euh, soq day wane ni man ñii franc doon daan duñu man parce que revanche par procuration la parce que Tyson 2 ci 200 pour cent bi la bokk. loolu bokk na ci enjeu yi nga xam ni moo tax lamb bi am solo pour pour pour Pikine. jërëjëf Père Bourkhane ñu ngi soufflé premier combat bi kan. ndeysaan xale yaa ngay lewaatoo bi mooy premier combat de la soirée combat bi moo dox ci katakan programme yoroo beneen. Euh, Daabu Ndaw. Ardo Senior ak Dame Ardo Senior moo ñu won kanam ni moo gàtt moo féete càmmoñ moo féete ndijoor waaw dëgg la Ardo bu Ndaw ak Dame Junior bu Ndaw bu Ndaw ak Ardo moo la féetee càmmoñ paawu CNG bi laa doon waxal gis nga nee ma da ngaa war a booy yow da ngay ruube fu la ngay dugg <laughs> waaye samay papa la ñu mënul Ardo bu ndaw ak Zaa daa ñor Ardo nga jàkkaar lool daa moo wan ginnaaw ndeysaan mbokki premier combat de la soirée daa daw na jëli ko Ardo dóor ma ngay dóor ci suuf daawa ngay fayu fu ñuy mujj Ardo daa daa Junior Ardo daa Junior Ardo Da Junior Ardo Da Junior Ardo ndaysaan ñu ngi noonu Da Junior Ardo ma ngi koy bëgg a bañ na Da caxabal na Ardo bañ Da Junior Ardo daa Junior Ardo daa Junior Ardo ndeysaan ñu ngi noonu da ardo ndeysaan ñu nga noonu da ko sol daa junior ardo ndeysaan ña nga noonu ardo ndaysaan mbokk yi moment bi ñaari xale yi di dugg di bëre ci la Franc di waaj a dugg si ci arène nationale <laughs> ay bis looy bañ mu yegg si bul ko wutal bis looy bañ mu yegg si bul ko àppal bés ndaysaan Ardo Junior ak Daabu Ndaw Ardo ak daa wër na ko ndomba daa wër na ndomba Ardo mu ngi koy da koy daan daan na ko eh, daan na ko daan na ko wala déet daanaat na ko ay waay daa daan na Ardo xale bi daan na waay eh daa daan na daa daan na Ardo Ibrahima ñi ñoo ak daa jaama gën si Kamba bii mooy sama troisième combat deuxième victoire lay doon bii baa ah. bii mooy deuxième victoire moi si n'est devant de erreur tey ah. tey am droit def erreur jamais de la vie bar sëñ Bamba daa am si lum jóge du ngaaxa yàlla dafa xañoon te yàlla dafa war a may léegi yow pour mu am ndam nan la war a nii léegi ma ñëw tegal la dossier <laughs> na ay galañ yu mu loxo ngi noonu <laughs> cey lii la lii la ndeysaan ñang mbaalo ma nga yëngal ñang mbaalo ñang mbaalo ndeysaan ñang mbaalo ñang mbaalo ndeysaan ñang mbaalo ñang mbaalo ñang mbaalo il faut nga concentré wu ci journée bi ñang baalo kaay Ibrahima kaay Ibrahima kaay salaamaaleykum Fall baa ngi noonu doomu ñoojoor baa ngi noonu bajili koo jóge ñoojoor Sangomar nga jóge ñoojoor ban jour nga mujjee jóge non après naa la nandal ah. bajili dama ñëw pour door roi des arènes yow mi barki sëriñ Saliou. booy dañoo bokk ci lim bi rek. lan moo la mën a def roi des arènes lan. ci kàttanu yàlla lu lamb laaj pour ma doon roi des arènes. ci kàttanu yàlla lu lamb laaj pour ma doon roi des arènes dinaa ko def bàyyi jëli. addunaa ne sama ginnaaw waa Kër Mbay Fall waa Ñoojoor waa Ildi Saloum taxawaalu waruma. dama war a doon roi des arènes Baye bu kër Mbaye Fall. dama a doon roi des arènes. daa mel ni yëngu nga de. dama war a doon roi des mbooloo mi la topp sa ginnaaw. bi nan nga ko war a mën a bëree est-ce que Ibo day ñëw rek. taxañ taxañee combat bi. ci kattanu yàlla lu lamb ji laaj. dinañ ko def baa Djily. dama war a confirmer Baye Djily dama war a prouver. Baye Djily dégg nga li ma la dama ñëw pour doon roi des arènes. booy duñ yàq yoon bi. lu bootu ci ginnaaw dafa bari. taxawaalu waruma waaw waaw Ibou ngi noonu ndeysaan doomu kër Mbay Fall baa ngi noonu ndeysaan ak seeguñu te ñu ngi wàcc waaw waaw dañoo xaw a tardé rek waa kër Mbay Fall maa yónni dañ maa yàqamti o oh. ndeysaan Ibou wa ngay yëngal mbooloo mi ma fekk ci biti est-ce que xaj nañ ci biir stade bi <laughs> waaw waaw Ibou Ibou Yaram Gueye a nekk noonu. ndeysaan dégg nga Balla ma ngay wax liñ leen may nee na leen Franc amul vingt personnes dix-sept personnes la am. Franc mooy ñëw. ndeysaan moom mbër mi. Franc Ndiago. mooy dugg si noonu Franc mooy moo nekk noonu. ma jeex jàmm la mu indi. ndox lay saraxe de te bu sànnee day dem cay jeex ndaanaan la ci làmb wala ñoomu àndal wuyul paa yi ndeysaan bis bi la laaj incha daan ndam rek si barke sëñ ndam rek incha rabbi du amul leneen sama jour bësee la. adversaire bi leneen dañ lay nax. jour bi laa judd. Oh. bi laa judd. kon yaay jox sa bopp tey kat. déggoo li ma la wax tey yaa suroon sama bis bi ñu tuddee ba Seydouna Mouhamed sama barke Trondo. juróom noonu dafa fort kon bis bi si am ndam incha rabbi yàlla dina ma xool si loolu may ma ndam incha allahu rabbi. ndeysaan mbokk yi arbitre bi sifflé na ci diggante Tapha Tine bu ndaw ak caatu Senzala ñu ngi noonu di lewaatoo ñoom ñaar tafaatin bu ndaw caatu Senzala <laughs> ndaysaan ña ngay lewaatoo ay waay tafaatin caatu Senzala ndaysaan ña ngay lewaatoo tafaatin caatu Senzala tafaatin caatu Senzala daw na jëli ko Tapha Tine Thiatou Thiansala ndeysaan ñu ngi noonu ña ngay lewaatoo diggante la njool waaye paa ndaama njool ak ku dugg dóom ndeysaan ñu ngi noonu Tapha Tine Thiatou lamb ji tey nar naa yëngu bu ambiance bi ñëwee ba baafuli tàkk ba mbay way sàjj dina garaaw tafaatin caatu sanzala tafaatin caatu sanzala ndeysaan tafaatin mooy njool mi caatu sanzala jëli ko tafaatin plaqué ko lan moo xew Franc dugg ndeysaan Caatu Sansala ndeysaan Franc mooy dugg si noonu Caatu Sansala ak bu ndaw Tapha Tine Caatu Sansala ñu ngay xeex ku yaa ngay jolli dugg lan moo nar a xaw mbot na ko génn nañ ña ngay xeex waa lii lan la. xale yi. bu ñu commencé nag xeex kenn mu leen at Tapha Tine Thiatou Sansala Tapha Tine waat na mbokk yi Tapha Tine Thiatou Sansala Tapha mooy njool mi Thiatou Sansala moo la gos góos ngemboo ngemb lu weex li mbokk yi ba tey ñu ngi noonu di lewaatoo Tapha Tine Thiatou Senzela Tapha Tine Thiatou Senzela arbitre bi nee na Thiatou Senzela taxawal arbitre est-ce que mën naa taxaw bu dee dañ ko nar a dóor est-ce war naa mën a taxaw ndeysaan na noonu soq tàllal na loxo bi mais mobilisation bu garaaw la soq def tey ña ngay xeex soq mbooloo mi mu indi tey musu koo indi ci stade bi ba làmb dee làmb ba tey tey li topp soq ci mbooloo ci supporter ci pikir musuñoo toq soq mësuñoo topp soq ci làmb ña ngay xeex ña ngay xeex mbokk yi jàppante nañu caatu sanzala ndeysaan jàppante nañu caatu sanzala ndeysaan caatu sanzala caatu sanzala ngi noonu ak tafatin bu ndaw tafatin caatu sensela mbokki cey <laughs> lamb tafatin caatu sensela ñaari xale yaa ngi noonu tafatin caatu sensela tafatin caatu sensela jàppante caxabal na ko ñu ngi koy wicc yegg nañu suuf jógaat daan tafaatin caatu sense la lamb jaa ngi noonu ndaysaan tafaatin caatu sense la ñaari xale yaa ngi noonu ña ngay bëre ndeysaan ña ngay bëre ndeysaan tey jàppante bi combat bee ngi bëgg a yàgg de jàpp na ko Tapha Tine bëgg naa jàpp Tapha bëgg naa jàpp caatu san sala Tapha Tine Tapha Tine caatu san sala ña ngay bëre laysaan ña ngay ñoom ñaar yegg nañu suuf mbot doo ci génn Tapha Tine daan na caatu san daan na ko tafaatin Tine daan na ko ba pare bugg koo koŋ yëkkati na loxoom Caatu Sansara daan na Tapha Tine waaw waaw Tapha Tine daan na Caatu Sansara <laughs> waaye lii Tapha Tine daan na Caatu Sansara boy pusal baax bu wax ngi noonu ndeysaan ndeysaan Franc ngi noonu yëkkati na loxo yi ba tey coow loolu ngay dégg coow bunt bi la mënul ñàkk ci làmb du ñëpp war a dugg ci biir ndeysaan ma ngay dem Franc ngay dem Franc ngi noonu ndeysaan Franc ngi noonu yëngu na. yëngu na yëngu na moom Franc. yëngu na. mu ngi noonu. gis moom Franc. na dama pare. Franc ngoog. ndeysaan Franc. ndeysaan. Franc wa ngi noonu ndeysaan mbokk ànd ak Edouard la Diokh mbokk yi ànd yaaram nee na damay rendi ndeysaan ma ngay jam boppam moom Franc ma ngay jam boppam cey làmb làmb ngi nii baaxu góor la foofu góor la ay xale koy def cey làmb làmb ngi nii Franc ngay jàpp di ñëw ngay jàpp taxaw na ma ngay léem ma ngay léem ma ngay léemu. ma ngay ñëw. delloo siyaar. waaw yaa am doom. sant yàlla bu baax. bis bi tey lan la laaj. dal ak teey. dal ak teey la laaj waaw. xeex wala bëre. lu mu laaj rek def ko xam nga la mën ci sa carrière. waaw incha allah xam nañ ko moom lu mu laaj dañ koy def incha allah. Oh. ndeysaan ma ngay wax ndeysaan Papa ma nga noonu di daw ndeysaan macha Allah jëlal fi du xaalu oh. du xaalu quatre du xaalu cinq mille du xaalu bi soq yanu xalu ñaata la waay soq waay waay doomu pikin bi waay soq mi tay bis bi am na lu mu laaj ci moom am na lu mu nar daa nar a xaal bi ma ngay ree toj na ko xaal bi Papa Sow ak Leeg TV Baalo Diouf nee na ko kaay leen nii. nee na dama koy rendi. Coy. nee damay rendi. moom soq nee day rendi. wëndëng bi wëndëng bi moom. laa ilaaha illallaah jëlal waaw Baba Jaxal bi fu mu jógee. xoolal lii bu sam sam gi ci xale. waaye Baba Jaxal lii ci xale. xoolal lii. lii rafet na waay. lii xale. oh. xoolal li Baba Jaxal indi. lambu jaa nii jar naa bàyyi xel ci làmb ñu mel ni saa yu ñëwee ci làmb làmb dañ leen a war a sauver ñu mel ni saa yu ñëwee làmb da leen ndax tey loxo jili ah? waaw waaw bi dara mu waaj rek non mu tey rek jox jox adversaire cëram amul leneen a ah? non xam jëmuñu koo xam sax ñun lu ñu yor rek lañ xam làmb noonu la yow jili yow doo ngaa ko xam nga ma la guy jili na lay ziar waaye bis dal ak teel a jàpp gan bi daan ko. li xam naa ko baax. maa ngi gën ba léegi lan la. du dara. non kooku du baax na lu yàggatu incha allah. guy maa ngi ko. noo def. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax. bëre nga ak Ardo. ci biir bëre ngeen wuree yéen ñaar ba daan ko mën nga maa wax nan nga ko daan. waaw dama jàppante dama dama daw maanaam dañ ma conseillé ne boo ñëwee bul dëgg sa bopp mën naa xeex ak moom dama xeex moom parce que ñu ma loolu loolu parce que lu ma topp lu ma ginnaaw dafa bëri quoi te sama koñ ñëpp a génn jigéen yi wala Seydina Mohamed maire yi xale jigéen yi bàyyi ñu kenn ñëpp ñëpp bilaa wala ay Farma Diagne maa nga seen bu baax barke Seydina Mohamed ah, yaa ngi ci yoon de waaw yàlla baax na waaw bi sama waay laa ko doon booy maa ndal Omar bii booy bii nii moom laa ko doon bëre non dafa bëgg combat ak booy yi nii gaan bi booy maa ndal waa sama waa mafia waa bi yëpp bàyyi ma kenn gan maa ngi sant sama yaay bu baax a baax a baax a baax. am na solo di sant Doum Sall Doum Sall maa ngi sant bu baax waaw di sant Cheikh bi di sant Cheikh bi bu baax a baax a baax di sant borom. jaajëf sant ñëpp gars yi tey bis bi lan la laaj. ndam. waaw mbooloo mi fan lañ la toppee Baba Diakhal. mbooloo mi ma sant yàlla. nii loo leen defal. maa ngi sant yàlla bu baax. fay nañ ko ay millions mënul indi li nga indi. sant yàlla rek. waaw sant yàlla. sëñ jaxal wëndëng bi <laughs> waaw waaw soq ak yow ndeysaan laa ilaaha illallaah munu koo muñ léegi mu yëg am na lu mu samp de ñëwal Pikine ragal du fa dëkk waa Pikine ñoo mën bis waa Pikine ngem na Eumeu Sène indi ko ngemb nañ Ama indi ko ngemb nañ Boy Niang indi ko tey ñu ngemb soq indi ko ndeysaan ma nga noonu Sokh ngay njàpp di ñëw ci géew ba la jëm am na lu ñu ko jox ci loxo bi ndeysaan ma ngay dem moom soq soqa ngi dugg di saraxe wala mu ngi dugg di defaat ay mystique gannaaw ba Franc duggee ba noppi soqa ngoog waay dugg na dugg na jël ko la may def suul na benn ma ngay dem ay mbokk ma ngi koy sas ñoo ngi koy yee te yàlla rek tax jëla sa temps baay barki sëñ Fallou ko rek soo ko yootee jàpp ko mooy loolu amateel bis bi laaj. waaw tey rek. tey rek tey rek. waaw tey rek. bilaahi li ak làmb ñoo ànd ko waaw. bilaahi walaahi waaw. waaw am na lu ñu koy jox. moom ñang mbaalo. ndeysaan nee na bis bi tey rek la laaj. booy fay am na lu mu koy laalale. cey làmb. mbër daal bu yàggee sëriñ si sar yaax lay doon màggatee rek sëriñ lay doon ndaysaan xoolal loolu ndaysaan cey Ibou cey lii cey Ibou moom it kenn du moom. gën feex rek. ah rek. ñaari doom day yaa ngi tàggatoo tàggatoo bu mujj. dem ci digg géew bi lii moo gën a garaaw ci làmb mbër mu génn ci cimikaayam di tàggoo ndeysaan Seydina Niang Mballo ngay dugg ci cey Niang Franc ngi noonu Odo ngi noonu ndeysaan mbokk ndey koy jur ndeysaan noonu am na lu mu yor jëm ci géew bi ndaysaan gis nga bant bi mu yor am na luñ ci laxas cey làmb làmb gi yëkkati na ci kaw mu joxañ ndeysaan day rendi barke Serigne day daan billahi day daan Touba la parcelle parcelle parcelle day daan ndeysaan sëñ Cissé maa ngi lay bégee Anaconda ngi nii Anaconda tey lan lañ la yabee bis bi lu mu laaj ci yow dayo bi gis nga ko ni mu toll waaw bés bi rëy na mais mënul waaw ñun moom man yaakaar naa ne man sama waay xam nga lii moom yéemuñu ko waa xanaa di si doole sant parce que tamit xam nga ay nit kenn mënu leen loué man sama waay yar ak teegi li leen di waa parcelle mobilisé xam nga parcelle bu ñu booloo duñu moroomu kenn si làmb parce que na bilaay wallaay mais booloo moo desoon te gis nga lii xel dal na préparé nee na sifflet arbitre moo la fi bàyyi ndaanaan waaw incha allah li xew si géew bi ko waa ñoo ngi fa ñu xafa googi nii champion yi gaa bëgg fees ci kaw ana Père Birahim lan la la yebe Père yem na ma rek na ma ma dal rek moom ma dalee rek amul lu may conseillé naa ma lii ngay bëre wala lii dal rek la ma wax. dal kese du ma waxaat leneen kese la ma wax dalal. waa Noiro. jaam la nii xaas baa nii. mi nii xaas baa nii. yow ci côté. Aliou dara 100 ragalu ma ci dar boo ko mënee bu dee si mën a mën reeree ko. barke Karim billaahi wallaahi su ma ko gañee su ma ko gañee billaahi wallaahi xoolal su ma bu nekk moo moo ma gañ bu ma mayee xaalis barke alxuraanu karim ma mayee ko si biir géew bugguma ko soxluwuma ko ah. barke alxuraanu karim suba booy dañ koy noosee dañ ciy togg ay ginaar yu baax ci ay boisson mooy loolu mi ngi nii xaalis baa ngi nii xaalis baa ngi nii Nuwaaroo jox na ma 150 000 maa koy téye ku gañe ma jox la ku gañe na jeex na jeex waaw noonu bon dégg nga lu ma la xaadim loo ma mën bëgg ñu jox la man xam naa la ci groupe bi groupe fi la lamb di leere dama ma jël sama xaalis di ko jox ku ma xamul ndax xam naa ni tout tard moom xaalis bi sama xaalis <laughs> booy sama booy ay bandi lañ de dañ koy nëbal yéen a ngi mel ni ay français yéen a ngi mel ni multimilliardaire te maa ngi yéen a yam yoruñu dara. barki démb laa ñëw. nga jógee. man États-Unis. alum nga jógee ci àll bu xonq ba. États-Unis laa jógee maa garga ñoo bëggoon benn kër. Ah. waaw. ana waa États-Unis. ñu ngi fa. Las Vegas. <laughs> wàcc loo waaw waaw di béggee ñëpp. sa masque bi. waaw waaw di ziar <laughs> di ñaanal Franc ndam waaw parce que laa mujj PA lay mujj dëkk Franc ñun parcelle lañ dëkk baay jili buñ soorelee keneen rek du yoon barki Serigne Bamba di ñaanal yàlla Franc yàlla may ko ndam ndam seddu guy ak bébé bis mi ñang baalo waaw talfa gaa yëpp waaw ñun doom PA lañ direct parcelle mooy daw suñu yaram waaw di ñaanal ñëpp yow ndam ku ne di bandi bandi la man booy jaaxal nañ ma. ay bandi ngeen léegi de. waaw moo ñu indi ko. ko ak Niang Ballo Niang Ballo moo la woon ngemboo ngemb lu guy man ko ruus jàkkaarloo ak ndaysaan ñang mbaalo guy manko ndaysaan xeex na dóor na guy manko dóor na ñang mbaalo dóor na ko dóor na ko dóor na ko quatre appuis wala déet dóor na ko ma ngay dóor ñang mbaalo ngay dóor ma ngay dóor ci suuf ñang mbaalo ngay dóor ñang mbaalo ngay dóor ndaysaan <laughs> eh, jeexagul wala déet wala déet jeexagul guy manko ñang mbaalo ña ngay xeex ñaŋ lu mu nar ñaar topp na xeex bi daa bëgg a xeex moom ñang mbaalo daa bëgg xeex ñang moytul guy ñang ko jàpp combat xale la ñaari xale ñang mbaalo guy ko ndaysaan ñang mbaalo guy manko ñang mbaalo guy manko ñang mbaalo fàqat na ko guy manko ñang mbaalo ñang mbaalo ngay bëre ñang attention mën nga am surprise ci guy manko ndax naanaan la daa mën a bëre te ni nga koy toppee nii mën ngaa vidéo ci làmb ji guy manko ñang mbaalo ndaysaan kii nekk écurie Bathie Seras kii nekk écurie Dóor Dóoraat Bathie Seras Zoss la moom la xale yi dekkalaat indiwaat ko ci làmb ji guy manko ñang mbaalo guy manko ñang mbaalo arbitre bi àtte na bi àtte na ndaysaan ña nga ca ndaysaan arbi bi na ñang mbaalo guy manko ñang mbaalo féetale ginaaw guy manko nga jàkkaar lool ñang daa bëgg cokkaas guy manko da ko bëgg a jàpp guy manko daw na jàpp guy manko ñang mbaalo ndaysaan ñu ngi noonu cey lamb jàpp na guy manko ndengeñ bi baax na ñang mbaalo da ko bëgg a mbot wala déet am na luy xeeñ guy manko lu mu bëgg ma ngay gën a seere ñang mbaalo guy man ko nga yëkkati ñang mbaalo ngay dóor guy ngay yëkkati ñang mbaalo ngay dóor guy ngay njëkkati guy yëkkati na ñang mbaalo daan na mbaalo daan guy man ko ñang mbaalo daan na guy ñang ko ñang mbaalo kot bi ma xeex ma xeex waaye loolu yëpp. baa bu set wax loolu. yal na la yàlla may ndam. yal na la yàlla subi ndam yal na la ndam bu sedd. billaahi wallaahi. mbër. waaye kontaan naa mbër. kañ la ni nga bëree ni nga bëree ni nga bëree. maa liggéey. so daam lu muy dindi si géew bi dama am lu muy dindi Cheikh baal leen ma àq Cheikh lamb moo demee nii baal leen ma àq Cheikh cey ñang ñii nga gis tey ak kële ci kaw ay ñaankat lañ ñoom ñëpp a ngi fi saa Touba wuyul kële lay nuyu <laughs> ndeysaan sëñ maa ngi lay siyaar tey bis bi noo ko gise Ba Jili maa lay delloo siyaar bu baax yaa ngi ci jàmm baax a baax. Ah, bis bi liñ koy gisee mooy. fii moom bërëbu làmb la kon buñ fi ñëwee làmb moo dafa def ñi ñëwoon fii. ah fas yéene jàppale Franc yàlla may ko ndam rek. waaw ndax yàlla ku na xam suñ kóllëre ak waa parcelle moom yàgg loolu moom moo tax te ku na xam ku rek xam nga ne parcelle bu baax a baax dañu ñaan yàlla yàlla may Franc ndam ci barki Seexul Xadim. laajuma sëñ Cissé yi ñaan laate wala dara ñaari mbëri ci wàllu mystique am na koo ci a xool xam ne mystique jàpp na ko. non pour le moment moom gisaguma koo xam ne mystique jàpp na ko moom mënuma la kaa wax ndax gisaguma ñaari mbir carrément wante Franc moom gisuma mu jàpp euh, mu tënku daal ndax bi mu dugg see ba léegi moom na boppam wante Sokh nag gisuma ko. moom wax dëgg yàlla gàllaa jàpp ko du question li ma koy ñaanal daal wante gàllaa jàpp lan la la woon. <laughs> yàlla na yàlla may ndam Franc rek. yàlla na ko yàlla na ko yàlla may ndam. déedéet xam nga moom tey jii nii lu war a xew suba sax yàllaa xam wante may na ab jaam tamit muy gis wante yàlla na yàlla may ndam Franc rek loolu daal laa lay wax bàyyi Sa Touba waajal ama bu rëy sax waaw sant yàlla baax rek di julli ci bi yàlla rek moo fi nekk te yàlla noppi na démb di door a dikk te ci kàttanu yàlla ak yonent bi incha allah incha allah rabi nañ am ndam rek nañ am ndam en tout cas am ndam bu soobee yàlla yow seen tudd bi nangu ak li mu bañ Ndeysaan. consulté ay si wax ñaari mbëri sifflé na. Ibo. Ndeysaan. ak Mame Balla Junior. Ibo moo ñëwoon ginnaaw Mame Balla moo ñun ah Ibo yëkkati ay supporter am. Ibo Kër Mbay Fall. Ibo moom ngeen woon ginnaaw. Mame Balla nga jàkkaarloog waaw waaw der na ñu tànk gauche Mame Balla teg tànk ñu fas yéene bëre ñoom ñaar ñu ngi lewaato ndeysaan combat bu garaaw ñoom ñaar Mame Balla Junior ak Ibo kii kër Mbay Fall la jóge waa ñu ngi lewaato uuf moom tooñ na ko léegi mu war a bëre ak Mame Balla Ibo sànni waaye dinañ xeex wala déet Ibo Mame Balla Mame Balla ca kas dóor mu daanu mën naa am ci combat bi ndax ku dëggal sa bopp ci wàllum xeex. andi ko benn arrêt surprise mën naa am Ibou fayu na. Ibou ko sëkkatal Ibou Mambal la. Ibou ngay séeréer la pataaka bi lañ. Ibou ak Mambal la ñu ngay bëree. Ibou Mambal la. Ibou ak Mambal la junior. Ibou Mambal la. dóor na. waaw waaw Mame ko bëgg a jàpp. Ibo la pataak ba lay seere ma ngay dóor Ibo xanaa dañ koo dig dóor mu daanu. ma ngay dóor dóor ba baaxul sori na. jàppante nañ Mame Balla téye na ñoom ñaar kenn amul ngemb. Mame Balla Ibo. ku ci wax duma nañu ndandi ñaari mbër yaa ngi Ibou Mame Balla Ibou ngay dóor ci suuf Ibou ngi bàyyi ñaari loxo di xeex wóorul ñaari loxo kenn ko bàyyi di xeex kaaw dina am kaaw dina am kaaw dina am Mame ngay dóor Ibou ngay fayu te Ibou bu fayoo Mame Balla am li mu bëgg ndànk Mame Balla ndaanaan la lamb ji ma ngay bëre ñoom ñaar Mame Balla ndengeeñ bi baax na Ibou ngay fayu ñi ngi téyante ndaysaan lu nar a xew supporter yaa nga yuux waa Alboury a ngi noonu Alboury dafay ndaanaan ndaysaan supporter Père Malick maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay. gisee ñaari xale. ngi TNT bon man damaa xam ñuy bëre fi mu ne nii. gannaaw <laughs> combat bi noo ko gise père ma. xaaral xaaral ba combat bi jeex. ndeysaan. Ibo Ibo Mamballa. suñu papa Malick Thiandoum. ndeysaan mooy wax noonu. xeex nañu xeex bu sew léegi. Ibo Mamballa. Mamballa ngay dóor. ñu ngi xeex. ku ye na Ibo ngay fayu. Ibo ak Mame Balla fàq na ko mu rëpp delloo na ko fàq na ko ñu nañ saako yi waat na tooj la toj na dem na ci ardo ba bisib na mbokk yi Mame xeex Ibou ngay dóor. oh kawate na dóor na ko mu daanu wala déet. oho dóor na ko kubu dal mu kawate. Ibou Mamballa. Mamballa ma nga ma nga fayu. Ibou Mamballa. ñi ngi xeex ñi ngi xeex. dóor mu daanu lu ma la waxoon. dóor mu daanu ña ngay xeex Mamballa du bàyyi. du bàyyi. xeex bi métti na Mamballa Ibou. oho. Mamballa demoon na Ardo. Ibra nee na maa bañ. de. Ibo nee na xale yi muy. nee na xeexam moo gën a aw yoon parce que kay dañ ko tuuse mu bëgg a xaru na day fayu boobu bëri rek la waroon def. mbokk yi arbitre bi sifflé waat na Mame Balla ak Ibo ndeysaan Mame ak Ibo bu kër Mbaye Mame Balla jóge na a sol léegi xëy na mu bàyyi xeex daw nañ jàppante waat Ibo nanguwul ñu ngi téyante Ibo Mame Balla Mame Balla Ibo Ibo ñu ngi teyante yëpp Mame bañ Mame Balla fi mu jàppoon baaxul ci kiw saar bi la jàpp ñu ngi teyante tànk jege na de wala déet Mame Balla ak caxa bala ngay xeeñ ma ngay dóor Iboo ngay door mi ngi door. Iboo ngay door ci suuf. Iboo. Mame Iboo. ñu ngi téyente. fàq na ko ko ci suuf. Mame Iboo. daw war ko ndombo Mame daan na ko. Mame daan Iboo. Mame Balla daan na Ibo Mame Balla daan na Ibo dem na fii ak toogoo arbitre wax na ñaari mbari sifflé na mbokk yi arbitre bi sifflé na. réparé réparé Anaconda moo la woon ginnaaw dañoo door a jàppante. Ndeysaan. réparé Papa Kane Anaconda Père Birahim Ndiaye. ma koy ji di ko ñaanal gudd fan ak wér. ndaysaan formé ay xale yor ay xale di leen jàppale ci làmb di leen tàggat daan na ko laa ilaaha illallaah eh eh eh, oh, eh Ibrahima Mbaye jël bi Anaconda na réparé gaaw Anaconda daan na ko jël bu rëy mooy kaay ñu bëre bàyyi ngay ñëw ma ngay daw di xale yaa ngi tànn rek inshallah nam rek dama dama jàll jàll fra yàlla la yàlla yàlla la yàlla may xool xool xale yaa ngi tànn yàlla la yàlla may ñëpp journaliste nekk ngay jaar suuf ndeysaan wax ak ñaari mbër yi mbokk yi arbitre baa ngi wax ak ñaari mbër yi li règlement bi nangu ak li bay sifflé na dox ci diggante Ibou Afia ak Caatu Piyol Caatu Piyol mbokk yi Caatu Piyol bi moo la woon ginnaaw ak Ibou Afia Caatu Piyol moo ñu woon ginnaaw Caatu Piyol jiital tànk demee nañu wet ñoom ñaar gis naa différence de poids tànk càmmoñ dañoo nar a xeex Caatu Piyol moo ëpp. jàppante waaye ci bëri lay mujj. Ibou Afia Caatu Piyol bi. Caatu Piyol nga ko sëkkatal ba bëre bi. Ibou Afia Caatu Piyol bi ña ngay xeex. door na ko kubu dal sentira ko. baat tontu wala déet. Ibou Afia taf ko. taf ko. roof ko galgal. bi. Ibou Afia bëri kat la. rëcc na tegal na ko bi ko. Afia daan na caatu piol bi rey na. Ibou Afia daan na caatu piol bi. mais différence de poids am na xale bi daan loxo ba mu laxas. mu loxo loxo ba ko ci génne. accompagnement yóbbu la yóbbu la mu ko balaa sax wax teg ko dama koy jógal. jéem na ko sax rof gal gal. Eh, Ibou Afia. mais xale bi nanguwul. xale bi fa mu wéer loxo ba la. laay laay nangu la bàyyi. jërëjëf Ibrahima Baye. mu ngi noonu di génn di dem ndaysaan am na defet bu ko bett ndaysaan am na defet bu ko bett ndaysaan Caatu Puyol bi am na defet bu ko bett soqa saraxe soqa saraxe ndaysaan soq dal jàmm rek gis naa soq bu dégg daaj ci bis bi tey pikit gépp bott li nga indi tey ci mbooloo musuma koo gis rek dal jàmm rek dal jàmm rek nee na dal jàmm rek nee na dal jàmm rek nee na dal jàmm rek lamb mus naa am waaye lamb musul feesee stade bi comme stade bi nu mu feesee journée bu ne am na arène nationale waaye journée bii mbokk yi lii ñu gis ci arène nationale mosuñu koo gis ba arène nationale di arène nationale ba tey jaaraama jàmbaar production félicitation à Mansour Ba waaye félicitation à équipe bi jàppale jàmbaar yëpp ba bis bi tey réussir bis ci moyen bu bari waaye bis bi wane na ngi nii mbokk gis ngeen stade bi nu mu def koñ ba koñ ba tey supporters yaa ngi dugg ci biti stade bi ndaysaan làmba ngi Eumeu Sène de tey ensemble tëree le sol. defal lu ne sa xel champion nga yaa dàq yaa ëpp sañ doomu Pikine nga def ko amul lu ñuy conseil lu ne sa def ko da ngay am ndam inshallah na ndeysaan am na seen ñëw na. waaw ñaan yàlla suñu borom may ñu tam woo kilifa yëpp. tey bis bi gis Pikine gépp génn dooleel soq mu war a bëreeg Franc adversaire bee toll noonu wala tër bi la diggante dañoo yor. poulain bu war a génn toujours su loolu la day am ku bees ku ñuy dafa jaadu loolu rek la. waaw man moom ku ma xam xam ci commando yi ok parce que commando yi ma bëgg ma bëggal leen sama bopp waaw man Codou laa waaw. waaw am mbégte mooy lu ma rek Pikine ñun lii ñu dañ ko baaxoo saa ñu amee bu ñu génnee rek day saf-saf. laaj tey. xeex la laaj na lu mu laaj ñu koy jox bu laajee xeex ñu ñu bëri. waaw combat bi du combat du combat bu war a sax am ay sikki sàkka jël bi la ñu daan ñu. est-ce que 200% bi loolu moom incha allah moo yor caabi bi <laughs> si kàttanu yàlla. dina ko tijji waaw si kàttanu yàlla. waaw nan la ko la lay fàttali combat bi sa ban combat la lay fàttali. contre Balla Gaye la lay fàttali. contre Balla Gaye la lay fàttali. ndeysaan. Ah, combat bi sax am na solo bi. mooy combat am. arbitre baa ngi waaj a sifflé. jeex jàmm moo ñëwoon ginnaaw ak Aliou Fat Fat mooy dajeeg Aliou Fat Fat. Fat Fat. booy ñaa ngi noonu booy ñaa booy ñaa dugg si na. arbitre bi moo la féetee ndi joor. arbitre sifflé na. combat bi la ñoom ñaari xale yi jàmm ak Aliou Fat Fat. kii teg 100000. Aliou jubu na suuf raxasu. waa jeex mais jeex jàmm nga ko sakatal. waa Fat Fat yi teg 100000 francs. mbokk yi loolu yëpp gis ngeen ko ci làmb jeex jàmm nga ko sakatal. xool fan la wànnante di mu jékki. boo ñaa ngi Fat Fat. ndeysaan jeex jàmm Aliou Fat yow daa mos a ko tol na ko Aliou replié na teg Aliou tooñ na ko léegi fu mu a demee ndeysaan ande wato loolu ngeen di dégg Ama Baldé Aliou Fat Fat ñoo di bak jeex daa mos andi na léegi waaye talul Aliou ngay reculé ndeysaan Aliou Franc yaram wi tàng na moom tamit. Jeex Jaam Aliou Fat Fat. Jeex Jaam moo la féetee ginnaaw. Aliou Fat Fat nga jàkkaarloo. bu na suuf raxasu. Jeex Jaam sànni na léegi waaye dalul. Aliou Aliou na léegi moom tamit. Aliou Fat Fat Jeex Jàmm. Aliou Fat Fat Jeex Jàmm. damante nañu Jeex Jàmm. Jeex Jàmm ak Aliou. ñu jàppante rek mu jeex ñoom ñaar ñëpp. demee nañu wet ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp li ñuy woote du dëgg ci ñoom. jeex jàmm Aliou Fat jeex jàmm ak Aliou. jàmm Aliou Fat Fat. Aliou gëdd na ko mu replier daje nañu. jàppante nañu. jeex jàmm daw na jàpp Aliou bañ na. jeex jàmm dama na ko sol. Aliou téye ci ku nekk ngi wóotu gemb. ngi téyante Aliou Fat Fat ma jeex jàmm ma nga yóotu ngemb. mbokk yi ñu ngi noonu. déedéet nañu. jeex jàmm Aliou Fat Fat. jeex jàmm Aliou Fat Fat ak jeex jàmm. mu koy biij. na ko mu bañ. koy biij. ma ngay dóor ci suuf ma ngay dóor jeex jàmm ma ngay dóor. jeex jàmm ma ngay dóor ci suuf. Aliou Fat Fat jeex jàmm. Aliou Fat Fat Jeex Jàmm ñu ngi téyante Aliou Fat Fat Jeex Jàmm ñu ngay ko ngi dóor kuy metti na Jeex Jàmm ngay dóor añ na ko nanguwul Jeex Jàmm ngay dóor ambiance bi bari na Boy Niang dugg si na Jeex Jàmm Aliou Fat Fat Eumeu na ñëpp a ngi ci ginnaaw Sokh. Jeex Jàmba Aliou Fat Fat. waaye Franc moom it parcelle kenn ñu ngi ci ginnaawam. Jeex Jàmba Aliou Fat Fat. ñu ngi téyante. ñoom ñaar ku ci nekk. sëq na am ci ngemb. ma ngi koy kal kal na Jeex Jàmba daan na Aliou Jeex Jàmba daan na Aliou. Fat Fat. Jeex Jàmba daan na Aliou Fat Fat. laa ilaha illallah. cinquième combat cinquième victoire. kooku mooy jeex jàmm waay jeex jàmm waay. jeex jàmm daan na Aliou Fat Fat. xoolal supporter jeex jàmm yi. tey <laughs> bi. jëloon fi yow lan laa tegoon. alxuraanu karim 150 mille du ma raw. billahi wala du ma ragal. dama ko fekk feneen kayam doole 50 mille mu daw. dama ko fekk feneen kayam doole 50 mille mu dawaat. parce que alxuraan lépp lépp. ñëw. ñëwal lan moo tax nga wóolu jeex jàmm ba teg ci moom cent cinquante mille. xoolal ngay teg cent mille. barke alxuraanu karim. comme maa daa ñëw. ma ne ko booy kaay maa lay fayal saal. maa lay entraîné. man du ma la ñëw stade ko. amul mbër buy taxaw sama kanam ñuy naa table nii ak nële. barke alxuraan dama koy teg lu diis. muy dem du bañ. bilaay du sa onk. kontaan dañuy dem mu jug day tëdd ma ko jugal mu jug. tey jii bu ko Paa woon su ma la ko jugee sax day jug su ma yoree un million dama ko siy teg barke alxuraan. billaay wallaahi. barke Serigne Saliou. waaw demal jël xaalis bi. maa ngi jaar maa ngi jaar. maa ngi jaar baax a baax. sant yàlla rek may ko parce que li ñu def yëpp pour dooleel ko ñaanal ko ndam combat bi combat bi am solo ci la waaw ñu ngi koy ñaanal su moo defal ko ndam daal ah ndam bi ñu ñoo ko soxla daal Pikine moo soxla incha allah. waaw combat ah. ah, teg jeexal la moom. waaw dëgg neexul quoi comme li ko Amady waxee waaw dañuy ñaan suñu ma dafa ko ndam parce que combat am na solo trop suñu daal day yéene nañ ko ndam daal bi laa walaay tey bés bu mag la ca Pikine tey ku gis tey ni stade bi mel vingt deux mille place tey stade bi ibekoo ba léegi mi ngi doog a mel nii tey bés bu mag la ci Pikine bés bu mag la ci par combat bi Franc la woon ak Sokh mais Franc moo ñu ci dugal quoi moo ñu yee taam nga Pikine moom lu mu dugg rek dafay ëpp loxo parce que ñun la am lu ñu ci soxla dañ koy jël parce que kenn xaalis bi dañ caa ànd ba donc lamb Pikine da cee bu mag waaw. en maa ngi ñaan maa ngi ñaan en tant que lutteur ñu bokk ndey bokk baay amul violence France suñu lamb moo ñu boole. nañ nangu ñu daan ko ci jàmm mu ñibbi ci jàmm amul xeer amul xuloo amul sànnate xeer quoi parce que ñu ñëpp abal lamb ay frère lañ quoi nañ ci gars yi jàppale quoi xam ne lamb moo am dam mais ñu ngi ñaan suñu bopp defal ñu dam mais bu paree ñu ñibbi ci jàmm quoi incha allah. waaw ñu waaw soo ko faral dañuy ñaan yàlla yàlla nañu defal ndam yàlla nañu yàlla suturaal. door yooyu yooyu yooyu la ñuy fàttaliku Eumeu Sène Balla Gaye bu njëkk ba xam na yooyu la ñuy fàttaliku wax dëgg yàlla waa Pikine soxla ko bu baax a baax. waaw moo tax ñu ànd mag ànd ak suñ soutenir lépp soutenir Sokh di ko ñaan yàlla suñu borom defal ndam. waaw dégg nañ léegi Modou Lo mu ngi bi di ñëw bu ñëwee moog Ama Baldé lan ngeen fas yéene. non bu ñëwee jàmm rek lañ koy dalal dañ koy dalal bu baax a baax mu ñëw champion la fii da luñ fi amee cër noonu la amee cër waaw dañ koy dalal bu baax a baax na ko mu ñëw naa ko Mawlo bienvenue ñëwal yàlla suñu borom defal jàmm boo ñëwee. kon kon du ko ñaan yàlla. jeex jàmm a ngi noonu taxaw. Cheikh Diam a ngi noonu. wëndëg mbaa ngi noonu ndeysaan. ndeysaan wëndëg mbaa ngi noonu. Baba Jaxal mu ngi noonu moom champion am na lu muy sotteekoo. am na lu muy sotteekoo moom Jaxal. ma nga concentré wu. Baba Jaxal ndeysaan cey lam jaxala ngay dem ndeysaan xoolal la muy takk ci tànk bi cey yàlla làmb daal ku nekk sa problème rek xale bi dafa garaaw moom Baba Jaxal dafa garaaw ma dem fan la jëm Baba Jaxal fan la jëm ay eh, wala boog dëgg la ndeysaan ku nekk sa problème non des fois nga ruube sax ndeysaan Baba noonu Baba ngay dem ndeysaan ndeysaan Baba Jaxal cey Baba Jaxal dem na Baba Jaxal dugg na waaw bërëb bi dafa dafa gaaw dafa gaaw waaw ñu ngi gis sa xam-xam lañ nekk par dëkk parcelle dëkk ak ma ñu mel ni ñoom Sonatel Pape Morlo xam nga ñoom Papa Sow Morlo kon bu ñu bëreewul rek xam nga dañoo tooñ quoi. mais combat bi adversaire bi li ñu séntu woon mooy dinañ gis xeex dinañ gis bëre mais prime dib la. waaw mais père rek lu am solo nee na caabi du pour du pour daaji pour ubbi la xeex pour ut la rek te ma ne bul taareel sa boo foofu noonu booy bi ma seetaan rek ni ma ko gisee noonu bëre bi ne si yow nekkul xaaj bi nekkul si moom bu mu tax nga naagu mais jox ko jël rek ko jàppee mu jeex. daan ko mooy sa ñaata combat. bii mooy sama onzième combat. huit victoires trois défaites laa am. wallaahi day wat day wat taxaw wat peer ne ma ñi la daan yëpp yaa leen mun. parce que xam nga rek dañoo doon ñëw nekk affaire bëre xale xam nga jeune ñëw rek tërërër xam nga ma loolu perte suñu combat. mais dafa ma ne combat boo jël sa temps boo daanoo man Birame Ndiaye maa la daane la ma wax tey mooy ñëw Papa Sow tamit waaye di ko sant baay ku ñàkk ki ñaan la Modou Lo keroog ma ñëw may ma contact xam nga ba pare may ma jàpp na si combat bi waa parcelle la xawma seen fay di leen wax ñu gën ñoo dooleel rek war na sëriñ Bamba waaw man ku ma lamb booleel rek xale yu on segi fii ci lamb xale yu boo xam rek koo si wax turam day ne mooy loolu yaa gën a xam te booy war na sëriñ Tuubaa maaxe man ku si maanaam bañul man waroo bañ waaw bu lamb dëgg rek waaw mais yàlla baax na waaw jaajëf

ñaa nga yuuxu amaye Modou Lo moo war a ñëw ndeysaan loolu du yomb mbokk yi Modou Lo mooy waaju dugg si loroñ des Parcelles Assainies ndeysaan bu bëre les deux daan ko bu bëre ak Gris Bordeaux daan ko aller retour di bëre ndeysaan ak Issa Pouye daan ko moom xale boobu jël couronne bi ci roi ci Eumeu Sène mbokk yi Modou Lo mooy noonu ñëpp di ko xam fan la Modou fas lan la Modou fas yéene def la presse gi noonu di ko xaar waaw dafa leer ndeysaan ndeysaan loolu laaj bi daa góor a gi noonu lii nag lu trouvaille la mbokk yi arbitre bi ñu wax ak ñaari mbër arbitre bi sifflé na demee di si Jaxal Baba Jaxal ngay arrière na lànk gi ndeysaan sorti de libéré demee Jaxal mbokk yi mooy combat spécial bi ci kanam tuuti Franc ak Sokh ñooy laale avertissement pour Baba Jaxal mbokk yi arbitre bi sifflé waat na Bébé Bismi moom nga jàkkaar lool Baba Jaxal moo la ginnaaw Bébé Bismi dóor na ko jàpp na ko lu mu nar yéen nañ saaku yi ñëwaat nañu Bébé Bismi daa décidé de Bébé Jaxal am na day am deux avertissement lan Baba Diakhal am na deux avertissement arbitre bi sifflé waat Baba Diakhal moo la woon ginnaaw Baba Diakhal jokkaas na ma ngay dóor jël na ko ma ngay dóor Bébé Bismi dóor na Baba Diakhal Bébé Bismi kaawo Bébé Bismi Baba mbokk yi combat bu garaaw avertissement Bébé Bismi am Jaxal am ñaar mbokk yi arbitre bi moom nga jàkk moo la woon ginnaaw Bébé nga jàkkaar lool Baba Jaxal jiital tànk di joor Bébé Bismi tànk di joor jàppante nañ mbëkk laa ilaaha illallaah Baba Jaxal ñàkk na combat Jaxal ñàkk na Mama Diakhal ñàkk na combat bi waaw waaw da koo mbëkk dañ koy disqualifié mbëkk amul ci làmb mbëkk amul ci làmb mbëkk amul ci làmb wala déet avertissement mbëkk jeex na Mama Baba Jaxal ñàkk na Baba Jaxal du ko mbëgg Baba Jaxal ñàkk na combat bi Bébé Bis li ngay mer mooy sànni loxo moom Bébé eh, boy ay waay ay waay ay waay ay waay lii ñaaw na lii lii ñaaw na ay waay xale yi lii ñaaw na il faut être sportif les enfants li baaxul lii ñaaw na nañ ak seen mbër lii ñaaw na oh lii ñaaw na ok lii ñaaw na Baba Jaxal ngay bañ Baba Jaxal ngay bañ Baba Jaxal ngay bañ mbokk yi mbokk yi Modou ngi noonu ma ngay dugg si ña nga koy xàllal moom Modou Lo Yékini Junior la àndal Papa Sow a noonu ci wet gi eh lamb waaye lamb naan ceeb ceeb bul ma bul ma. dañuy taxaw ne leen. non non xam ni ci kanam bu ñu dal. war loo ñu noonu di ñëw. Modou Lo. ndeysaan mu ngi naan xaaral leen ma. may leen ma ma ñëw. may leen ko mu ngi noonu ndeysaan. loolu xale ñu doon di noonu ndeysaan. ndeysaan moom mu ngi noonu.

Sénégal gépp doon xaar ci wàllu lamb Pikine doon ko xaar Parcelles doon ko xaar bis boobu yegg si na muy drapeau Astou Ndour international basketteur ndeysaan mu nekk koo xamante ni jigéen bu mën góor la jàmbaar jël bis dara jaare ko ko mbokk yi arbitre baa ngi mu ngi wax ak ñaari mbëri li règlement bi nangu ak li règlement bi bañ soog loolu mi ngi wax ak ñoom amul door ci roof yi. arbitre bi laaj na leen mbokk yi arbitre dimanche. vingt ak sox. dimanche dix neuf juin. Franc moo ñëwoon ginnaaw national. sox moo jàkkaarloog ñun. mbokk yi yéen a ngi lay jox. Franc nga jàkkaarloog ko jiite bu càmmoñ. ñu ngi lay waatoo. ñu ngi lay waatoo. Adiamba production moo ñu fi woo ak ah, sox. kii Franco dina ko sox dëgër xam nga dina garaaw ñoom ñaar ñoo ñoo ñaar joor sokku ci na tànk càmmoñ Franco tooñ na léegi Franco cokaas na baata joor la ñoom ñaar de door mu daanu mën naa am wala déet daa am soox ndeysaan Franco nee na ko may naa la waxi mbër la wala du koy jëfee Franco sox sokku cokaas na sànni na gis ko Franc door na na ngay xeex sokatoo na ko dañoo nar a xeex sokk Franc ba déclenché mu remis ko sokk Franc door na ko remis mu dal Franc soqaas na door na takk na ko daw na jëli ko daw na jëli ko ko faax na ko mu rëdd Franc ñu nga jàppante wax nga faax na ko sokk sokk Franc Franc

day Mbàkke kon loolu fi xew loolu fi xew Franc dañ leen sopp Franc dañ ko sopp waaw del xoolal ma la ma waxoon ci kaw daa mel ni dafa am loo ma xaw a nëbbu waaye gis nañ préparation mystique gu mbër yi yàgg na lool mbër yi presque diggante vingt heures quarante six ba vingt et une heures ñu ngi ñu ngi ñu ngi nekk ci seen préparation mystique. waa boo xoolee làmb ji mystique da cee bari ci côté soq nag soq mystique bi dafa des. daanaka yor na ay leget ak di xëppoo fee wante mystique daa des trop te Franc dafa andi lu wér péng bi nga fekkee ci kaw comme li ma la waxoon wante Franc mii nii bu dëggalee boppam di entraîner pour mbër daan ko di yomb ndax ngemb li baax na te am na ci mbukaay. mais bi ma la laajee ci kaw da nga ne gisoo kenn ku mystique jàpp actuellement. waaw wante déggoo ma man la xanaa ci kanam wante ci kanam fan laa xamee ne soq mi parewul bi mu wër leget gi nga xam ne lim lim bi ñu koy wër sax ëpp na lim bi ñu ko tegtal ni ko moom nga koy wër sa adversaire ëpp na ci géew bi. moom ñaata lim bi ñaata la war a toll lim bi gën a néew ci ci ci a néew six lay nekk six. bu a bari. a bu a bari six laa ci xam ci lim wante boo xoolee daal li ma xamal muy yàlla may na ndam Franc loolu lañ doon ñaan yàlla ndax man Franc moom fen doon moom laa doon ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. mais indi na bekke ci géew bi moom soq. bekke ban ban ban njariñ la ci wàllu mystique. damaa wax sànq ci kaw stade bi ma gis naa soq muy saraxe ay dàll dàll bu bëree ci yow rek daanaka dama lay wax ne sa làmb parewul daanaka dàll moom mbër moo gis mu koy saraxe lu bari ci biir làmb xamal ne mbër moomu jekku nan ko ak i perkaal jàpp i perkaal di wërale jàpp mètre mètre di wërale ci biib géew foo ko gis ku nekk mbër moom pareegul waaw boo xoolee Franc da gën a pare fuuf soq bi muy dugg si teel naa dugg si wante bi Franc dugg si rek ci bi rek nga xam ne Franc ko gën a pare. dugg si stade bi sax dafa yéex. signe yooyu du bokkul ci signe yu xamante ni da ngay njort ni mbër mi du am dara. waa des fois sëriñ man na ne la sa adversaire na lay jiitu ci biir làmb ji yow mu la dugg si ba ci comme arbitre bi sax buy woote dan lay wax ni la na la njëkk a dugg ci biir géew boo xoolee soq moo ko njëkk dugg si stade bi soq moo ko njëkk a dugg ci biir géew bi kon da ngay xam ne mbiru mystique la Franc dañ kaa jàpp ni du mbëru mystique waaye nag Franc dafa mystique budul boobu muy lim nekk beneen bi ci topp muy nitu mystique la hmm. te mbëru mbapat Franc bu leen fàtte ni papat la. mais am ngeen bis bu rëy Ama Baldé ak Modou Lo Modou Lo dugg si na stade bi yëpp yuuxu. Ama yi Ama yi Ama mooy làmb lu mën a am. làmb moo ko def. kon na takkaan ngemb la ñëw bëree. Modou bëtam jël na Ama. Hmm. yàlla xam na koy dóor ay Eumeu Sène ñuy daanu jàpp ay Gris Bordeaux ñii ay Ama Baldé. xale màgg na Ama bu ndaw moo koy rey nag ba mu ñëw ba ba jël bi moom comme nii rek. parcelle ak Pikine benn waar la. pour Pikine am ndam ci ko parcelle day jafe waaw loolu laa lay xam. maa lay jaajëfal baax. jërëjëf sëñ Jili jërëjëf jërëjëf.